éradiquer les bouillons alimentaires et limiter la sel. docteur Abdou Niang bu Pikine moo ko moo ko wax. <laughs> mooy li mu daanelee. <laughs> waaw parce que moom professeur Abdou Niang ñu koy sargal di néphrologue. Uh-huh. seen problème mooy insuffisance rénale bi ni mu bëree ñu war leen di dialyser. li ko lu gën a bari ci liy indi insuffisance boobu muy diabète ak hypertension artérielle. Hmm. bu dee hypertension artérielle li nekk ci xolu problème bi mooy xorom si. Hmm. xorom si fu mu jógee mooy li ñuy togg saf na xorom ñu jël ay ay bouillon di ci dolli. Hmm. donc mu nekk lu ñu lu ñu constaté. ci hôpital malaat bu ñuy dialysé. message bi nga xam ne moom la ñu def muy message santé publique mooy bi muy vulgariser nii mooy. li ñuy togg. bu mu am bu mu am bu mu am bouillon. xorom waaw bu mu am xorom wala wala bu ñu ci def bouillon loolu nit ki mën na ko des décider boppam mais au delà ñu ne woon say nañu interdire nañu tere importer importer bouillon par exemple. xam nga parce que li ngay lekk mu am xorom bu xasee dugg ci deret bi. deret bi nar a saf xorom. yaram bi rein bi dafay dafay retenir ndox. Mhm. donc boo waroon am cinq litre deret par exemple. pour que deret bi yorom bañ a saf xorom trop. day ngacc ndox boole ko ci donc mu jóge 5 litres daal dem 7 litres ba 8 ci misaal. donc yoon yi nga xam ne cinq litres moo fa war a jaar. bu fa 8 jaaree pression bi day yokk. loolu indi hypertension. Mhm. mooy indi AVC moom néphrologue la moo tax euh, affaire roulage bi daal di ko kile mais neurologie AVC la bu dee xol bi. Euh, euh, crise cardiaque donc loolu yëpp jaaree ci xorom bi nga xam ne di yokk volume ndox bi di yàq pression bi ci bi ci mhm. artère. kon boo ñibbee neel soxna si mu bàyyi xorom si waaye. non man sama papa nag dafa jël ay résolution moom këram kenn du fa togg bouillon hmm. te li tax ma doon wax ne léegi kilifa yi mat nañoo bàyyi xel moom loolu ci sëñ Saliou Mbacke la ko jële woon hmm. ndax sëñ Saliou daf ko doon tere systématiquement hmm. waaw bouillon yi daf ko daan bañ systématiquement donc euh, di wax ne pour pourquoi ma ñeewante spécialistes yi ñu am mooy il faut que ñun tam ñu protéger leen parce que bariwuñu te lii dal ci seen kaw bari na. Mhm. amuñu guddi amuñu bëccëg. léegi comme bariwuñu te lii dal seen kaw bari na li ñu leen mën a dimbalee mooy la prévention. Mhm. loolu aussi ñu interpellé waale ministre bi yor wàllu santé. Mhm. ne mbir mi tamit comme santé prévention la na prévention nekk une réalité ba ñu xam ne nekk une nekk na réalité. ni ñu gërëm professeur li mu def nii ci prévention la. bokk jël de son temps ñëw fi pour wax ñu sujet ba nga pare fast track gis-gis. waaw non fast track. man daal la ma waxoon la dernière fois rek tout tànk yi. ñun moom buy ba wey na mbuus. tout tànk yi moom. nañu teel a développé seen seen goût li ñuy lekk. sans li ñuy lekk ñu ñu développé ko bu ñu boo nga xam ne bu ñu màggee du ñu nekk ay ay accro si si si si li ñuy togg si biir kër yi waaye bu dee pa maam jaak yaay jaak papa jaak liir bu am deux ans bi yëpp ñooy bokk même même lekk moom day doy waar. Papis Diaw ah, xam-xam ne du du waxantu. oui te kii boroom xam-xam la. xereñ na ci bu bu waxee lu mel nii nañ ci bàyyi xel et puis dafa day confirmer benn affaire def benn émission par rapport ak les insuffisants rénaux man ju boobu laa amoon confirmation que ne bouillon yi dafay contribuer si lu bëri ci insuffisance rénale. Hmm. et loolu c'est pas nouveau on an avait parlé dans des oui. émissions. Hmm. mais on en avait parlé man man j'ai fait ce plateau là benn jour mais amul suite xam nga ça fait lu ay 4 ans. xam ñu ngi koy waxaat moom la wax sax da ngay wax benn affaire cinq ans après. li même problème sans solution waaw du am solution. malheureusement li ma jaaxal mooy bu ñi xam ñoom lañ tudde borom xam-xam. xam nga dañuy man ñu liggéey université dañ ni solution bu dugg université problème bu dugg université. bu solution bi génn dootu génn ci réew mi dootu génn feneen problème bu dugg université. Mhm. bu solution bi génnewul. oui dootu génn nag ci réew mi. kon problème yooyu ñii li ñu wax mais nañu tere purement et simplement bu ñooy. Ah, enrichir ñett nit ñeent nit juróomi rey tout toute population pourquoi fast track beneen bi ci topp euh, dafa fast track alors Ferdinand Coly je vais renoncer à ma nationalité sénégalaise je n'en peux plus euh, pour ñu comprendre dafa am problème ak benn euh, entrepreneur bu mu bokkoon business mm. affaire bi mujj ci wuyaa yooyu nii. Mm, Amar ah, en fait man. Ah, Papis ah, Diaw waaw même ma wax si lii parce que moi j'avoue que je suis très déçu. Mm. je suis très déçu ci ni Ferdinand euh, réagirait est-ce que une affaire une business est liée à une nationalité loolu c'est une appartenance il y a combien de Sénégalais qui ont des contentieux ak ou ay problèmes wala perte ay projets dans ce tribunal xottuñu seen carte d'identité wala seen passeport c'est pas lié pour man. Papis euh, Bouba. ça me choque. honnêtement pour quelqu'un boo xam ne sol na maillot équipe nationale. grave ça euh, euh, peut-être quelqu'un boo xam ne yaruñu ko fii ñu yar ko ci ay nasaraan ñoo ko yar dëgg bi dañ koy wax. mu ñëw Sénégal am problème bu mu mënti nekk nga quand même wax un truc aussi grave pour bu fekkee moo ko wax. non moo ko c'est. waaw moom laa wax ne waaw journal dama bëgg wax que ni vraiment ça veut tout parce que bu fekkee dafa nar renoncer ci nationalité est ce qu'il a il a été sénégalais lui. Birima. xamuñu nag genre Charles Faye la Sénégal. <laughs> Charles mi ngi nuyu ñëpp mi ngi Malaisie. dafa voyagé mi ngi Malaisie man dëkk Sandiara. Hmm. juddoo fa aw ma beneen nationalité bu Sénégal bii. munoo ko du ma ko renoncé. Hmm. non il l'a il l'a dit sous le sous le coup de la colère quoi. mais yow doo mës a wax mais waaw. totalement en phase avec Papis. Euh, euh, professeur nga ñun psychiatre yi yi nga xam ne dañuy wàll situation bu am rek. dañuy jéem a xool lu ko lu ko waral. essayer de lire entre les lignes c'est une expression d'une maanaam dafay exprimer rek déception bu mu am par rapport à certaines wala injustice bu mu vivre bu toogee tuuti réfléchir dana xam ne li mu wax nii ci mer nekk na loo xam ne taxawul parce que kenn gënu koo nekk sénégalais de cœur oui alors bi ci bi ci des le dernier Abdoulaye Wilane c'est dommage député bi la fi waroon fekk le députés sénégalais sont mal payés tu es d'accord Birima ah la c'est possible c'est possible. oui comparé mais est-ce que député Sénégalais bi mi ngi def dañ ko sant. il est député bu defee dañ ko sant. parce que man gis naa député yoo xam ne ci bi ñuy voté budget bi ren. oui dafa doon dem. oui ci am na ñoo xam ne premier ministère ba dañuy ministère tegu fa seen tànk. Mm. est-ce que du ministère député boobu nga lañ jox. Mm. ñu ngi budget national li yor réew pendant douze mois yow ngay député ñu fal tegoo fa sa tànk ba mu jeex amul benn ministère boo voté wala boo ñàkk a kooku mérite na salaire junni. liggéey par nga laaj salaire. nga def li la war. alors warul nekk gis-gis parce que c'est trop court. Hmm. est-ce que on aspire à être député pour être riche wala pour. Euh, non pas pour non je pose une question. Hmm. ah non salaire dama ne est-ce que da ngay bëgg a nekk député pour am ay ay quand quelqu'un dans un pays comme le Sénégal qui se tape un million cinq cent mille francs de salaire par trente jours. am oto am carburant am oto am carburant si liggéey bi nga ne c'est mal payé. la mhm. nañuy wax lan mooy fonction député réellement. booba c'est ce qu'on n'a pas encore compris finalement. Ah, euh, Wilane moom député la. oui. ah c'est sûr bien sûr. non parce que en fait en man je convoque même cumul de de fonctions yi c'est-à-dire que lui il est maire de Kane fële. Kaffrine et eh, Bourane mais ki fi jógee député ma bàyyi ma egg. c'est pas interdit non c'est pas interdit c'est ce que je voulais dire mais moi j'ai ma wax da dégg wax seen wax. dama ne comme moom mi ngi wax waxi salaire ma ne maire de Kaffrine député à l'Assemblée nationale en plus. fii la toog fii ne il percevait un salaire si mairie de Dakar alors qu'il est maire de truc maire de de Kaffrine déggoo ma de.

de euh, kii. ma nekkul woon maire waaw mais non mais mais laissez-moi truc doole. rek information mais li ma wax ni man déggoo ma ne la bàyyi man ma wax li ma wax dama ne. cumul de fonction yooyu yëpp ah lié la mairie de Dakar bi bu bu bu bu bu bu Khalifa Sall bi ah maire de truc ba pare nekk député à l'Assemblée nationale boo cumulé yooyu ngay kii yëpp. defe naa ne ma 3 millions. malal mais c' est quelque chose qu'il dit juste après une campagne électorale ama campagne dañ lay jox budget bu ñu la joxee budget da ngay noos léegi nag xam naa xaalis bi moo jeex mu am nammeelu nammeelu weccet loolu la. non tu n'es pas sérieux euh, Pape Djibril. les députés sénégalais sont mal payés par rapport à à quel député par exemple. c'est-à-dire hmm. nit ku aussi sa réew da xam li nga àttan ak li nga mën par rapport ak li nga xamante ni ñoo la koy jox ak rendu bi hmm. li nga xamante ni jox nañ la ko comme mission hmm. <laughs> ndax yaa ngi koy matal dëgg-dëgg donc tey jii nga xamante ni fi ñu débat bi fi mu toll mooy est-ce que dañ leen war a defal indemnité dindi salaire yeeg yooyu donc xam nga débat yi tamit foofu la toll fi mu ne ah. moom il sama xarit la mais il est député il est député CEDEAO peut-être que dafa comparer ak li nga xamante ni moom la ñuy am au niveau de la CEDEAO mën di wax daal bëgg réew mi ak liggéeyal ko am na solo. ah man bu ma yuusu woon ma ne ko na yokk de doyul. <laughs> professeur. ah li ma ci yaakaar du mooy ne kenn kenn salaire salaire doyul kenn. waaye da ngay xam ne yaa ngi liggéeyal sa réew. Mm-hmm. li nga am ak néew nga jéem wut pexe pour mu yokk. Mm-hmm. te nga leen li mu nekk sacrifice quand même. Mm-hmm. vraiment merci beaucoup maa ngi koy fàttali demain euh, ci samedi ji yaa ngi am conférence mais nangu toog ak ñun fii ba heure bi ñaari téere yi ngay euh, siiwal ban la encore une fois. 11 heures fan. faculté de médecine euh, grand amphi oui. oui voilà euh, professeur euh, Abdoulaye ñu koy gërëm di ko sant àndoon ak moom ci waxtaan wi yéen it di leen gërëm di leen sant ba beneen àjjuma incha allah. yeneen yu mel ni lu doon ngir liberté.